mu ngi noonu Assane mu dem ci président Macky Sall démb tàggoo na ak euh, ministre yi bi ñuy def conseil des ministre tàggoo na te lay def incha allah remaniement euh, nga xam ne ñu baree baree bare daal jàppoon nañu daanañ toog ca table conseil des ministre mën naa am buy amaat du leen fa fekk ndax président daal ci semaine bii ñuy dugg daal dana def ay coppite daal ba ñu xam ko ndax tàggu na leen. waaw am na solo koo xamante ni moom bu tàggoo ren dana tàggoo déwén tàggoowaat déwén wax dëgg yàlla ab tàggoom mais mi ngi doog a tàggoo Assane. Hmm? mi ngi doo ko tàggoo. li muy tàggoo bari na de. waa mais loolu mooy fu mu dem tàggoo ji. waa tàggu na kilifa diine yi. tàggu na waa tàggu na waa Nations Unies. Ah. waa ñii ministres yi la tàggoo yi bokkul Assane da bërëb bu ci nekk ñii ay ministres am lañ. Hmm. ñoom la doon tàggu démb. mais dina leen tàgguwaat. Ah même kilifa diine yi dina leen tàgguwaat. <laughs> waaw loolu de say révélation maa la ko wax. ay ca euh, bis dana ñëwaat mu war a tàgguwaat. ma bind. waa benn ko ko bind. dina leen tàgguwaat en daal mi ngi noonu. waaw tàggoo gi daal moom it baax na lool waaye fexe ndaw ñi toog tàggoo si jàmm ak salaam moom gën na foofu te nii moom tàggoo si jàmm ak salaam signalé gut waaw ku pare woon di jàmm daal moom danga ko mën a xam. ku pare si tàggoo si jàmm ak salaam da nga ko mën a xam. Hmm. waaw say ndaw yi réew dinañ mën a toog say discours dina mën a kii détenu politique yi ñuy wax da nga leen mën a bàyyi si jàmm ak salaam ñëpp nekk si jàmm. waaye nag ni ñuy doxee nii daal tàggoo bi moom damaa bëgg xam ne lu ñuy def si bopp askan wi la rek ba ñëpp xam ne kat président Macky Sall mii pare woon na pour dem tàggu na ñi mu war a tàggu ñëpp mais nag situation réew mu mel nii moo tax mun gut a dem di leen fi bàyyi il faut mu régler réew mi ba pare doog leen fi bàyyi. te am réew mënuñu ko régler noonu ah. réew mi dafa déréglé dafa ëpp na dee réglé. mais réew mi bi ñu ko koy jox. Hmm. réew mi bi ñu ko koy jox. Hmm. néew ñu xaarañu di réglé réew mi jox la ko. waaw dafa ñëw rek ni mën naa ci dara ñu ko am. waaw léegi nag bu keneen ñëwee ni mën naa ci dara. Hmm. jox leen bu nee naa ci dara ko moo tax man la kon réew mi moo tax man la réew mi président Macky Sall bu ñu ko joxoon téeméeri atit est-ce na ko réglé ci nii waaw ci nii nii nii nii nii nii nii bu nii bu ñu si d'accordoon si mu ñu may ko mu defar réew mi dana bàyyi ñi si kaso bi maanaam réew mi lu fi yàqu ba mu naan may leen ma defar ko tëj tëj kaso bi ñoom ñu ko da leen di tijji rek réew mi defaru léegi nag tijji gi mënu leen ko mënu leen ko def te ko ah oui ah la waaw mu mm, leen ma ma yokk ma bàyyi leen ñu dem mun leen ma téye leen <laughs> ah ah révélation ngi ah. noonu de ah? mu ngi noonu de mu ngi noonu kay hmm. joxe hélas pare nga ci yàgg na <laughs> alaaji mu mel ni tàggu na kilifa diine yi tàggu na ba mu demee ca mbootaayu xeeti réew yi bi yoon nag ay ministre am doon bokkal toog conseil des ministre tàggu na leen te day def remaniement. waaw non defe naa tàggoo yi nag boobu parce que defe naa ministre yi la tàggatool pour wan leen ne leen am na ñoo xamante ni bii duñ ñëwaat mais moom du moom. waaw maanaam dafa war a def remaniement te am na ñoo xam ni euh, duñu. tàggoog ñoom daal ci kii bi waaw. Mhm. pour wan leen ne leen bon ku ci nekk ci yéen. mën naa nekk koo xam ni du toogaat ak man mii ci taabal ji ñuy faram-fàccee ka lijjanti dara defe naa ne tàggoo bii mu tàggoo ministre yi moom euh, boobu la mais li am solo rek mooy euh, fi mu toll yi moom wax dëgg fa yàlla yii yëpp daal. kon ñii ñëpp ñoo nekkoon ay ministre ñii. jàpp naa ni ñii ëpp vingt cinq de wala. jàpp naa ni. mais lii bari na de. jàpp naa ni lii lépp daal. Ah. jaru ko. lu tax waaw wax dëgg fa yàlla jaru ko lu tax. ah remaniement bi yooyu parce que xam nga ma wax la leen son yi alaaji euh, gis nga booy changer muy def effet hmm. nit ñi dinañuy yàkkamtiwaat booy changer parce que dinañ yëg ni secteur sàngam diw sàngam ba mu fa nekkee doxutoon waaye léegi nekk na fa kii mais léegi dañuy gis ni secteur sàngam danga fay jëlee nit sax teg fa beneen nit ñu sentir ni dafa gën a doxati hmm. maanaam dox bi ñu ci doon séentu dañuy sentir ni yëpp yi faruta sax maanaam day gën a arrière mhm. xam nga tey boo koy natt ci am na ci ministère yoo xamante ni bii tey dañ lay wax ne la ba fa diw nekkee de moo gënoon bi ñu changé indi waat diw mhm. comprendre mhm. te diw yooyu nga xamante ni bii ñooy gën a nekk ci askan wi ne kii doxut ñoo ñooy gën a yàgg ci poste ya maanaam mi ngi mel ni nga yor équipe de football maanaam ñi nga xam ne bi ci biir équipe football bi ñoo gën a cuune ñooy gën a yàgg ci terrain bi ñi aay maanaam ñi aay dafa mel ni da ngay seppi sax yow ñi aay hmm. euh, dajale kii bu ko defee xam nga nag pareen saay loolu mooy indi yow nit ñi xool ne ah ñëpp bu ñu cuunee yow nga nekk maanaam tey damay jàpp pareen saay ba toog jafe damay naan bon est-ce que pareen saay muus yeewu aay sax est-ce que du déli ci pour nga nekk ci biir équipe bi hmm. waaw parce que boo seetee ñi nga xamante ni bii ay double bouton yàggoon nañ fi defe naa dafa dem ba bu moo kii parce que moom nee woon na mooy double bouton. Mhm. comprendre nga. ñi nga xamante ni bii poste nekk da biir ne la euh, dañuy exécuter rek ñooñu amuñu benn problème peut-être ñi nga xamante ni bii dañ naan non nii nii. Mhm. peut-être ñooñu ñoo am jafe-jafe. ba ñenn ñi am jafe-jafe am ñoo xam ne démissionné nañ ñeneen ñi nga xamante ni bii xam nga Thierno Alassane Sall bi muy démissionné. c' est parce que euh, lañ ko bëggoon a signaloo nee na lii gisu ci njariñu Sénégal mu daal di génne loxoom te defe naa ni ministre yi ministre du ñu ministre président Macky Sall déedéet mais ministre réew mi lañ mais suñu problème mu réew yi nag mooy leen ñoom ministre yi yëpp dañoo jàpp ni ministre président lañ boo jàppee ni ministre président nga nag léegi nag dootoo liggéeyal euh, réew mi président ngay liggéeyal maanaam ni mu ko bëggee parce que xam nga kilifa da koy dimbali mu bëgg a tàbbi ci erreur mais yow mi mu tànn yaa ko ci génne. parce que yaay wax ne ko lii kat <coughs> duñ ko def ndax lii ak lii ak lii peut-être xamut nga xamal ko. parce que tamit xamut lépp. président dafa am lu mu xam rek. am na yoo xam ne xamu ci dara yow mi mu tànn yaa ci xam dara. mais nag léegi nag bu fekkee ne daf la tànn ci sa domaine léegi yow nga bëgg koo bàyyi moom muy doxal domaine bi. lu mu wax rek nga ne woy woy c'est noonu la. maanaam mu wóorul lii baaxut sax nga ne d'accord. bu boobaa dara du dox. waaw dëgg la parce que yow lañ noon pour nga doxal ko mais yow ci sa jëmmi bopp bi nga ñëwee doxaloo dara. d'accord